licence MMA yi Sénégal yëpp xaj nañu si bépp ay mbër bu nekk Sénégal mën mu nekk nga MMA fu nekk ci àdduna bi rek euh, licence dafa ànd ak ay règlement nag léegi loxo léegi dañ koy considéré comme arme lii nii lii ak pistolet ñoo yem waratuma dóor waroo dóor kenn sa comprendre mais jàppal ni que tey am nga licence bi nga xamante ne nga bëre fu nekk ci suñu assurance instant yii gaañu ma fi de mais suba hôpital laa jëm ñeleen ñu xoolal ma sama yaram dégg lépp. ñu <laughs> xool te ah, assurance boobu moo ko ñun bëri ku nekk eh, la ñun ñëpp lii ay lii lu yomb lii gis nga état moo fi ñëw mm-hmm. état ñoo jugee fële ñëw léegi nag comme passeport américain rek fépp foo ko teg rek la plus de 450 millions la def ci sénégalais de 450. millions.